Zeyna Fatma Diop Maysa. ndeysaan. Fatma Diop yow sa mbaax feeñ na ci àdduna. ndeysaan. ma Diop. bu ma la bañee man xaw ma lu may bañ ci yow. aywa arvise àdduna wër na boppam bëggeel ci borom lay ne. Fatma Diop yow bëgg la rek moo ci des. bëggeel ci xol di ko man de xam naa ni mbëggeel ci xol lay nekk xol ba xel ma di ko faale addina di ko séntu maalo may sa addina moom du cere waaye laalo la